khalifa bi waye waxaale ci tour mamam bu ko defé ñu mëna continuer li nga xam moy programme bi Serigne Omar Seck vous avez la parole sañ buñ sañoon nag nu awasu billahi min asheytaani rajim bismillahir rahmanir rahim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 allahuma salli ala sayidina muhammadin adada kulli maxlumaati allahuma salli ala sayidina muhammadin rafihum darajaati wa duud assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi nuyu mbokk yi mbokki dëkkandoo yi di nuyu bokki lislaam bi fi teew di nuyu umma mbooleem koo xam ni yaa ngi wax ashhadu an la ilaha di nuyu góor di nuyu jigéen ci mag ak ndaw di nuyu chef de quartier ak notable yi ñu dëkkal ak waa gox bi ñëpp bàyyiwuna kenn di nuyu kilifa yii fi teew te kenn ku ci nekk ñu waroon a jaar ci sa tur ak ci sa sant jox la sa nuyoo waaye dañ koy dugal ci nuyoo yu jëkk yi rek kon noo ngi nuyu ñëpp bàyyiwuñu kenn di ziare bu baax xalifatu am Cheikh Mouhamadul Muntaqa ñu ngi koy ziyaare bu baax di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi te mu wér ak xalifatu Baye Fall yi ñëpp di ziyaare xalifa Serigne Mbacke Mbay ibnu Cheikh Mouhamadou Lamine Mbay moom Cheikh Sadiye Mbay di sama ndijaay bokk sama waajur wu jigéen wenn baay te ñoom ñaar dong nu des ci ñu bokk baay di soxna Soda Mbay di nuyu ay magam yi fi ne to tok fi di nuyu Cheikh mohammedul Fadal nu koy ziar di nuyu magam Cheikh Mouhamadul Abdallah nu koy ziar bu bax di samay ndijay di samay xarit ñuy samay soppe di nit ñu bax di dom ci Cheikh mohammedul basir moom sunu maam Cheikh Sa Dieye kenn rek a dox seen diggante ak Cheikh Sa Dieye mooy ñaari jëmm yee toog ñoo ngi leen di siyaare bu baax mbay sang di nuyu nag ki nga xam ni moo waral tànt bi waral jëmm yëpp teew fi mooy Cheikh Hassan généralu maam Cheikh Sa Dieye Mbaye yal nañu ko suñu borom bàyyi mu yàgg fi tuur di nit ku baax. di nit ku dal di ku yaru ku teey di nuyu rakkam sëriñ bàcc ñu koy wax Cheikh Ahmed Samba Mbay moo dend ak moom nee na ko ziyaare bu baax ñu tuddee ko sunu maam bàcc di doom sunu maam di sët ci sunu maam Cheikh Sadiay Mbay mbokki julli yi suñ mbokki sëriñ subaa fii toog di waa kër Cheikh Sadio Mbaye Cheikh Samba Diarra ak Anta maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ziar yéen ñii yéen a bokk ak sama maam Aram Mboy Mbaye Cheikh Sadio mu jur magum Diouf mu jur ma wolof Njaay nag nee சங்கங்களை வைத்து ne yaat ma cuuna ngoog du ma ko boolee kenn ma ne ko danga ma waroon a boole ne ma sëñ Maodo Moustapha yaat ma cuun mu ne ma bon li may wax du añ ci du dëgg ci man mag ñi dañoo baax yàlla nu leen yàlla fayal bu may dugg ci yaat ma cuun nag bala ma wax dara damay ndokkeel sargal alaaji daam cuun mi toog moo fi sunu mag toogal fi Cheikh Cuun ak njabootu yaat ma gépp door a ñëw nag ci yabanaate ak bay mbay mi toog bu ma nee yabanaate nag nee naa général Alioune Thioune ndax mooy waajuram waaye bu fekkente ne da nga di picc may leen bis xool sedd la yàlla nga ko yàgg man waaye kii ngay defal sant gi dañ asan mii toog buñ naa général kii moo tax homme de tenue laa maaj naa sol naa tenue ñeent fukki waaye moom tenue bii mu sol seen turam gi muy gàlloo boo ko fekk up a waajur di sëñ bayti amar moom seriñ sëriñ ibnu amar ak bokk darman ko yëpp ñu ànd ak ñoom ñëw fii ànd ak ñoom bis bis bi nag ñu ñëw gën cee bég ñëw fekk bi sëriñam di sëriñ asan moom Cheikh Issa Dieye ak mboolem njabootu Cheikh Issa Dieye gi fi nekk yëpp ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di rafetlu kàddu yi rafet yi nga xam ne wax ngeen ko ci seen taalib bii di Seydi Aliou loolu rek la nit war a bàkkoo moom la war a nit war a ndamoo boo demee ba sab sëriñ gërëm la say mbokk gërëm la wax dëgg yàlla loolu deseetoo dara li la war rek mooy góor góorgóorlu ak ñi nga xam ne nekkuñu ci woon ñu fekk si ko ci ne ànd nekk ak moom ci loolu loolu rek la ñun nag suñu kàddu yi di kàddu suñu waajur moo fi waroon a teew waaye tey dafa nekk ci bitim réew moo tax ñëwul ànd ak moom ndax xam na fi ko Aliou féete bu baax a baax a baax loolu lu mu ñu wax ay yoon yoon la kon sëñ Aliou sëñ bi mi ngi lay nuyu bu baax sëriñ Bayti moom sëñ in mi ngi lay nuyu di la sant di la gërëm te di la ñaanal say mbir di gën a yokk say mbir di gën a baawaan ci barke Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul la awliya yi wala yëpp mu seen ji tout bind na ko wax na ko te ñoo tam nu mu nungul nañ ko ko moom ñu wër ñun yëpp ñu ci yàlla muy shérif ak wax na ko kon boog maa ngi sant ñëpp di sant euh, sama doom ji nga xam ne moom laa fi fekk mu waral bés bi sëñ Aliou Thioune mi nga xam ne moo ko kiiwal bës bi sàkkal bés bi mu ñëw ma fekk ko fi Aliou Thioune yàlla xam na ne man maa ngi xamante ak moom géejuwaay booba xamoon na sax sama doom ji mooy sëriñam yàlla xam na ko de mu ñëw fii ndeysaan mu may mu jàpp ma lool def ma ni bàyyam su ma ñëwee ndeysaan mu dugg ma si otom yow ba route nationale de jox ma paas xamoo ne moom Arsène ñun sooy sëriñam de yàlla xam na ko waaw yàlla mi leen moom xam na loolu waaw moom Alioune Tine bii waaw mi waxtaan nag mu jëkk si laa xam ne Arsène mooy sëriñam waaw ma jàpp ko bu baax mu doon xale bu yaru moom Alioune mii waaw Arsène tamit doon xale bu yaru yaru ndax saan kër ga saa yu ma fa nekkee su ñu may su ma nekkee su ma kiyee tàng ba tàng yi moom may defal papa ni ma papa toogal rek naa ma nangam nangam moom nii xale bi waaw andona benn bi suñu yàq sama jàppukaay ba ma xaw yëngu foofu mooy ñëw nesaan defaraatu moom baax defal ma si ay xeeru béton weex tal non papa kon kon xanaa ku la lii man ngaa kii mu gën nga kontaan ma ne ko kon ba baax na moom daf maa xam <laughs> yàlla na ko yàlla def mag te iñaanul iñaanul loolu laa ko jàppee xale la waaw moom ñun yàlla na ko yàlla musal suñu ndox ak pakk bi bi ma déggee bës bi yàlla xam ne dama ko gis rek si kii bi ñu wax ñu ko ñu mboolem moo doon moo njobootu moom ni ñu ñëw woo naa leen moo tax ma dagg sama itte ñëw te yàlla tax man fanaan si jàng sax sumay mbir ndax waaw damaa bëgg nelaw daal <laughs> yaa ngi dégg moom mii nag jëf ji mu def fii kee sama rakk la ñoo bokk ndey ak bàyyi ma namp joxoom fam fadal bi ñuy génnee ndeysaan mu fekk ñu ci toog fii man ak sama rakk jee ndeysaan mu yëkkati ñu yóbbu ñu fee fu mu waroon toog mu toog fa te suñu ñëwuloon moo fay toog waaw dafa am benn xisa bi ne di nettali yonent yàlla Yuusufa alayhi salaatu wassalaam yonent la en même temps di buur bi nekkee àddina ay doomu baayam dañ ko doon fexeel dañ ko doon fexeel ah ñu jàpp ko yóbbu ko sànni ko si àll ba ba ñu ay njëgg fekk ko fa yóbbu ko misra ñu jaay ko moom yoon ci yàlla su alayhi salaatu wassalaam ñu ko yóbbu foofu mu nekk fa ndeysaan bu misra jël jël ko jënd ko mu nekk ba la koy dal dal ko foofu yëpp nattuweeg yëpp yoon ci yàlla Yuusuf alayhi salaatu wassalaam Ah, ndeysaan ba baayam di jooy rek ne frère yi xamoon naa leen wax waxoon naa leen sama doom yi ni ngeen ko sànk rek ngeen ko sànk ndeysaan mi jooy di jooy ba doomi baay yi ndeysaan dem foofa xamuñu woon Yuusufa léegi si nguur gi la bokk nekk na fa ba yàlla napp ko fa ñu ko fa kaso moo ma génn kaso mu may génne kaso ba remplacer buur ba moom yonent yàlla alayhi salaatu wassalaam ah ndeysaan baayam tamit àndaat ak frère yi ñoo gën sa dëkk ba ñu nekkoon ñëw si seet si Yuusufa bi ñu ñëwee ndeysaan ci palais bi Yuusufa mi ngi toog nii si si trône bi jàkkaaroog baay bi frère tamit jàkkaaroog moom waaw yonent yàlla yusufa néewul jóg bërëb akaloon baay bi taxu ko waaw dafa waroon jóg comme kii ni mu def asan mu jógee mu ne toog rek di jaay di di di di ne xam ne ne moom mooy buur bi wane maay buur bi di xool baayam baayam di ko xool ak frère yi suñu borom ne ko gëñ naa sama tedd nga dootoo jur yonent du tax jikoo gàtt na sa baay du tax ji ko sa baay da warul jóg ñu bërëb na ko nii tuwoon ko ne ko papa toogal ci kaw moom asan def kon boobu yàlla na la yàlla defal loolu waaw loolu rek laa bëggoon wax ndax man bàyyam laa wàcc na dara ñoom yow ñëw ma kee sama rakk la <laughs> yaa ngi dégg te noonu ko suñu moom ta koo taalee waxee xam nga yonent bu ne ñaaral yonent ngay jur soo amee doom day doon yonent mais suñu borom dafa ne ko yow Yuusu dootoo jur yonent <laughs> ndax li nga sa baay <laughs> dafa ne ko giñ naa moom risque dootu jur dootu jur yonent ndeysaan mu sogo ko kii sogo kii bàyyi kon boog Assane li nga def rëy suñu ñun yàlla xam na ne suñu ñëwuloon fee ngay toog Alioune Tine sa baay sa xar sa taalibe la ñii tamit ay ay mbokkam lañu ay xar taalibe lañu kon boog loolu nga xam ne mën nga ñu dara yu jooju nga ñu kii yal dañu doon sa baay yàlla yàlla fekk sa fan fekk suñu fan te musal ko su ndog xale soo ko dee ñaanal danga nga yàlla musal ko su ndog ak pakk ndog ndog ndog ndog baaxul si kenn baaxul si xale la gën a bon borom karaw gu ñuul ak weex boobu ñuul moom laa ko ñaanal sànq ne ko yàlla yàlla suba si cet ak làmmiñ musal nañ si ñun ñëpp dëgg kon boog loolu rek laa doon dolli kan asal li nga def sa bopp nga ko defal ndax yëf yi toppante rek la waaw waaw yàlla yàlla dolli jàmm te suturaal ñu suturaal leen man allahuma suturna sidikal jamil allahuma suturna sidikal jamil allahuma suturna sidikal jamil fu dunya wal axirati yal nañ ko yàlla defal defal leen ko te jolli jàmm si réew mii dolli ko suñu kilifa diine yi dolli ko suñu kilifa aada yi dolli ko si ñëpp ndax jàmm ak gën lu dul jàmm jàmm ak sutura lu jar di ñaan nag sutura yàlla yàlla sutura su xotteeku jàmmi àddina ak jàmmi àllaax yan ko yàlla def allahumma salli ala sayyidina muhammad nabi bi muy wa ala alihi wa sahbihi wa xaadim ngeen baal ma jërëjëf sunu Serigne Doudou Fall Serigne Assane gis ngeen bi ma woowee léegi balaa ñuy def li nga xam ni mooy décoration yi am nañ benn orateur muy sang bu tëdd bi waaye Serigne Assane daf ni ma jëlal ma kàddu gi te waxe ma ko ni ma la ko waxloo Serigne Assane nag duma ko yokkal du ko wàññi nee na ci kanamu suñu wajur wu tedd bi di bàyyi yabata naat cun ak njabootu Cheikh Sadie Mbaye gii mu bokkal Cheikh Sadie ñoom la koy seedeel di ko seedeel mbokki jullit yi di ko seedeel mbokki talib yi ni Serigne Alioune Thioune mii général gërëm naa ko sant naa ko sant naa ko cant goo xam ne am na fu muy tàmbalee waaye amul fu muy yem nee na dafa dogg ci barke maamam Cheikh Sadie Mbaye al dëgg Sadie Cheikh Samba Diarra Mbaye mi ci ceeb nee na moo dogg ci barke maamam yàlla na nga bokk ci milliardaires yi Cheikh Sadie Mbaye waaye wax leen amin waay sëñ Aliou sëñ Assane mbay nee na yàlla na nga bokk ci milliardaires yi sëñ Cheikh Sadio Mbaye général gi nga xam ni nag moom lan lay woowee danoo toog ca Touba ma ni généralu sëñ Assane Mbaye xalifab seex Sadio yi ni bërët ni ma kaay ma ñëw mu ni ma bul waxati généralu Cheikh Assane mbay mais man mii nga xam ne maa fi toogal Cheikh Sadio mbay maa ko tuddee généralu Cheikh Sadio Mbaye loolu nag ku mu doyul dara dootu la doy sëñ Assane nag nee na yàlla na nga mucc yàlla na nga wér yàlla na nga gudd fan yàlla na nga am xéwal ku lay xaar yàlla na xàtti mu ngi lay ñaanal daal ci barke maamam tey nee na dogoo dogo ñi ñëw ci baas bi ñëpp seen aajo dina faju waaye nee na ay bokkam képp kuy mbokkum sa ki nga xam ne mooy général Thioune bàyyi bon nga bàyyi ko xel te xam ni at mu dugg at ma ma mooy dàq lii la ma sëñ Assane wax ni man na nga ko waxee ni ma ko waxee ñun ñëpp nag mën nañoo wax amiin yàlla na ko yàlla def ci barke yonent bi mu ni nee na lim ma wax dara du ci de nee na nit surtout taalibe bu dëgg triché woo ci li ngay def dara loolu mooy ak taalibe man xam naa sama bopp xam naa li ma yor bu baax xam naa sama maam li ma defal xam naa ni ku naqaree àndal laa moo tax nee na jàmbaar dëgg jub jubal loolu la gis sëñ Alioune Thioune nee na képp ku nag bokk ak sëñ Alioune Thioune béy nga yéene ko jàmm ndax da nga da nga yéemu na kenn mënu ci dara bal ba tàkk na ba pare te dara du ko dindi barke Cheikh Sa Dieye te lépp lu ma wax képp koo xam ne weddi na ko nee na na dugal baaraamam xol barke Cheikh Sa Dieye sa baaraam dana ne tël dam nee na yokkaat naa sëñ Aliou Thioune bis ni ko tey kenn du ko dindi barke Cheikh Sa Dieye. ñaan bu de mag Mahamadu xayru xalqi ah Seydina Aliou général bi général bi def na jaloore ah. général bi def na jaloore Seydina Aliou def na jaloore mooy woon Serigne Assane Mbaye Mouhamad Rasoulaay Mahamadu xayru xalqi al xayra bi mu xayyabatul fa taqra Allah نصرة النجم محمد المختار لا خلق مثله dootul bind ku mel ni Seydina Muhammad ana ñi bëgg Seydina Muhammad an xayra bi mu xay abadul matara an surat al najmi Muhammad al Muxtaar la xalqa misoo alayhi salaam man loxol amru kanu kumi Muhammad al Maxruuf maayin wa maayin woo Seydina Aliyu def na jaloore mu biise mosoonul mosuulul anil muslim mu jiibul Seydina Muhammad am na ñu bëgg yonent mu jiibul mu jiibul mu mu dalal mu ne mu biwul ma bu bi madinatu xilmin sëriñ Asan Mbay di nga siyaare ji yonent bi sidina Ali yooy moo la yóbbu bayti laayel araaw sa taalibe bi moo la yóbbu bayti laayel ana waa kër sidina Aliyu général bi ana waa kër sidina Aliyu Cuun général bi généralu sëriñ Asan Mbay madinatu xilmin murtajan min la tullana jariul wa mun min zunubin wa min zulmi Serigne Assane Mbaye jërëjëf jërëjëf